bien yoon bi yoon moo tëral ne bu amee ay recours ba noppi euh, candidat yi nga xam ne yëpp jàlloon nañu parrainage dañ leen di convoqué yëgal leen recours yi nga xamante ne def nañ ko contre ay candidat candidat yi yàlla def na ñun bokkuñu ci candidat yi nga xam ne ñoom ñoo am recours contre ñoom ñun it defuñu recours contre kenn ndax lu ñu mës a jàpp depuis le départ mooy ne ñun du ñu def dara pour faagaagal kenn lu ñu bëgg mooy ñu dem si élection si jàmm képp ku war a bokk bokk dafa suma ne sama candidat bu mu demee euh, Khalifa Ababacar Sall bu mu demee euh, euh, dialogue national lu mu posé woon foofu buñ ko toppoon tey ñëpp dañu doon nañu doon candidat dafa waxoon rek ne nañu supprimer loi bi parce que ay élection dafa nekk inclusive démocratie compétition électorale la la àndal moo tax si sunu moral ak voi boobu ñu tracé woon kenn xaarul woon ñu déposer recours contre personne effectivement aussi déposer ñu recours contre personne kenn aussi déposer wuñ recours contre sunu candidature. lañ ma jox exactement te bi ma ñëwee conseil constitutionnel euh, notification bi ma jox mooy bi nga xam ne moom Cheikh euh, Thierno Alassane Sall euh, recours bi mu déposé contre Karim Meïssa Wade parce que déposé na recours boobu mais ci biir recours boobu soo ko xoolee d'abord dafa amoon les faits. en même temps aussi mu boole ko ay preuves preuves yi nga xam ne mooy wane ne Karim ba le 14 janvier mu ngi ci fichier électoralu euh, France loolu nag xel mun na koo nangu ci biir loolu nag ñu mën a wax ne aussi euh, euh, décision bi ñu gis tey war naa mayaat aussi dëgg Thierno Alassane Sall parce que bi Thierno Alassane Sall di déposer recours bi boobu décision boobu amut et décision bi ñu gis tey kon dañoo mën a ne tey la décision boobu door effective alors que Karim Meïssa Wade ci boppam mandataire am bu muy déposer see dossiers au niveau du conseil constitutionnel dafa waroon a ànd ak neuf pièces ak li nga xam ne mooy euh, parrainage am et ci loolu la ñu sukkandiku pour mën a contrôler ses parrainages mais ci biir loolu dafa am déclaration d'honneur boo xam ne dafa war a wax sénégalais man sama bopp amuma beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise mais donc lu mu wax ak li ñu déposé bokkut ànduñu c'est-à-dire wax na ne nekkuma nationalité sénégalaise kese la alors que moment bu muy déposé ay dossier ñaari nationalité la la am foofu nag sénégalais est-ce que ñoom dinañ nangu jël koo xam ne dafa am feneen nationalité am fii nationalité ñu koy fal seen jiitu réew ëllëg mun naa def lu leen neex mun naa jaay réew mi jaay ñu ñun ñëpp ainsi de suite te man ah man boog du ma ko nangu man sénégalais kese laa te du ma ci soxlawaatuma leneen je suis fier d'être sénégalais et lu m'en limite là donc lenn yi nag aussi sincèrement sénégalais ku nekk war na koo mën a jàngat ci sa bopp war nga koo mën a xoolaat et eh, Sénégal aussi euh, ak sénégalais boo mën a nekk ak boo mën a nekk ak foo mën a far dëgg su jotee rek nañ ko waxtaane parce que réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi benn yéene lañ ci am mooy muy avancé mu nekk réewum jàmm mu nekk réewum teraanga boo xam ne ñëpp benn lañ.